من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن nanuy siyaare baari njiyam demu leen Tuuba ki baari Cheikh Ibra Mbàkke nga fa toog di ku ñëw mu may la woto yaa ngay gaare wotiir ak fardu ya dañ daan gaare ak tip quarante-cinq ya baari deesu fa mar deesu fa mer day maare lépp na gemmu baari dootuñ xaari jannaatu haddanin lay misaal fa baari yanantuyul ya fala mboot yay jaari wa maskani salim minal fu jaari wam nun halal ahli bima in jaari bamba ko wax ki mbàkke baari ak daaru manaan fala ndox yay jaari cheikh ak i seef ñëpp fa war di jaari kenn waru ko teggeeti carnoy ngaari li bukki wir wir war jaari ndaari tabaari man nag ndaari lil anwaari subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu nu jotee ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha na fi yàgg lool te ànd ko wér wàcc si ci kër waajuram wii di Serigne Ibrahim moom Serigne Touba Khadim Rasoul waaye mu fekk fi rakkam ji di Serigne Daam Mbakke moom Cheikh Ibrahim mu jot ndigal loolu ngir waajal bis bis bu tedd bis bu màgg di bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahim doon topp jéegoy Cheikhul Khadim yi bàyyi ko woon Mbakke bari jaar fi Serigne Touba jaaroon ca Côte d'Ivoire Mayomba ba ni mu demee Gabon dellusiwaat fii nag di xetliwaat jaam yi ca Mbakke bari bis boobu moo war a dëgmalaat war a doon benn fan ci weeru juillet. dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru kori wi ñu di ko amale ca baar yi ga nekk ca Mbàkke Bawol moo tax Cheikh Mamadul Fadal moom Cheikh Ibrahim moom Serigne Touba Xaadimu Rasul toog ci jataay bi toog ak ak njabootam fas yéene woote bis boobu nag nga xam ne bisub Serigne Touba la. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul sunu kilifa. di jëwriñu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Fadil mi toog ci ndigalul sëñ daam Abdourahman Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi lépp nag ci kilifteefu Cheikh Mouhamadul Mountakha mu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne tey moo fi toog jataayub sëriñ Touba ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ànd ak mbokki taalibe ba mbooleem lu mu liggéeyal sëñ lu mu yéenee liggéeyal sëñ Touba mu defe ko ni mu ko bëggee lii waral jataay bee kàddu yi nag mooy ni nu ko baaxoo daan defee rek dajeeti nañ fii ci waxtu wi di ko sant yàlla bu baax kër Cheikh Ibrahima Mbacke ngir fàttali bis boo nga xam ne dañ ko ko baaxoo defal at mu ne bu yàlla dogalee ñu wari ba am fukki fan ak juróom-ñaar muy bis buñ koy fàttalikoo di ko ci ñaanal ñu jàpp ko ci bis bi nga xam ne ci la fi jóge woon def tukkeem boobu nga xam ne wax na ne Serigne Touba moo ko ko digaloon ngir mu toppi yoonu tukki géej gi motali at yi war koo def nag ren ji incha allahu taala dimanche le premier juillet di ko defee ci Mbàkke Baari ga nga xam ne fa la déparé woon dem ci tukki boobu bis boobu nag nu bokk kook mbooleem waa réew mi bokk kook mbooleem julit yi bokk kook mbooleem taalibe yi waaye bokk kook mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa sëriñ bi nee na kon mi ngi ciy woo ñëpp bokk yi xarit yi ak wëllëre yëpp di ci soññ mbooleem mbokki taalibe yi di wax ne am nañ ndigalul fu fi waaye mën a nekk te aju ci kër gi am nga ndigalul boo ko mënee nga ñëw ànd kook moom ñu bokk defe ko nañ ko daan defee mbooleem julli it mi ngi leen ci koy yëgal di leen ci woo di sàkku ci mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp itam njàngum alxuraan ak ay xasida jëmale ko ci borom bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku euh, di ñaan itam mbooleem ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi ñu koy defee di Mbàkke Bawal te daan ànd ak nun liggéey bi muy daayira yi ak dëkkandoo yi yëpp ci yaatal gi ak taxaw gi nañ ko daan defee ñu wéy ci defe ko noonu di ci woo njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne nag noog ñoom ñoo bokk bis bi tàmbulee ko ci ñim bokkal sëriñ bi ci boppam waaye ñim bokkal sëñ Mor Anta Sali ak mbooleem kuñ bokkal maam Maaram ak mbooleem ku bokk ci mbusoobe ak mbooleem seexi sëriñ tubaay ak mbooleem jullit yi ak mbooleem waa réew mi yëpp ñu ngi leen ko yëgal di leen xamal ne ku ci ne am na lu la boole ak Cheikh Ibrahim te loola lu ko neex la lu mu ca jokkut du ca dindi dara loola nag tax na bu ko yëkkatil bis lu muy man mooy yëgal leen ko te tàllal leen ci loxo fas ko yéene ak ànd ak yéen nam ko daan ànde ak yéen waaw kon ba tey ci waajtaayu bis bi rek euh, ñu xam ne incha allahu baaxoo woon nañ di ko def at yi yëpp muy bu màggal gi jubsee ñu daje ca dakaar bis boo xam dañ koy def waajale ko màggalu Cheikh Ibrahim waxtaan ci ak dundam ak ab liggéeyam ak ay jikkoom euh, yaatal ko bu baax a baax a baax ren ji fas dañ koo def samedi le 23 juin incha allahu taala ca King Fat Place euh, daaw ñi ngi ko defoon ICAD 2 ren King Fat palace lañ koy defee samedi 23. Euh, neuf heures mooy mise en place bi incha allahu taala ñu ngi ciy woo ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo féete ci gox boobu. Euh, yéen mbokki taalibe yi maa ngi jël kaddu ci turu taalibe yi nga xam ne bi ñoo aju si kañ si Ibrahima Mbacke euh, ci ndigalal sëriñ Fallu mi nga xam ne bi moom la sëriñ bi ndox muy suñ jawrin di suñ sëriñ kon kaddu yi ñoo ngi woo taalibe yëpp. fépp foo xam ne fii ab taalibe ma nga fa te yaakaar sëñ Ibrahima Mbacke ña ngi lay woo màggal gi nga xam ne gi at mu jot ña ngi koy defee ci Mbacke baari mu daje fukki fan ak juróom-ñaar ci kori wi nekk benn fan ci mois de juillet di dimanche ñu ngi si woo mbokki taalibe fépp foo xam ne fii ab taalibe nekk na fa te yaakaar sëñ Ibrahima Mbacke wala nga yaakaar sëriñ Touba rek ña ngi lay woo kon ñu ngi si woo waa dakaar yi ñu ngi woo waa Ndar waa Kaolack ak waa Ronx yi ñu ngi woo waa ak waa Jolof fépp foo xam ne fii ab taalibe fu nga xam ne sëñ Ibrahima Mbacke nga aju rek ñu ngi lay woo ci bés boobu nin fa daa taxawee nag xam ngeen ko taalibe moom ndigal rek lay déglu kon nag ñu ngi leen ñëw nekk ci ndigal ñi nga xam ne bii ñoo yor organisation bi lu nu digal ñu def ko lu nu tere bu nu si fekk loolu leen nga xam ne bi mooy li nga xam ne bii moom la ñu sëriñ bi sant mooy ab taalibe ndigal si la ñuy wéy ndigal li nag mooy jàpp si bés bi nga xam ne bii ñun moom rek lan am muy sëñ Ibrahima Mbacke ndax sa sëriñ nag kenn ku si nekk am na bunte bi nga xam ne bii moom nga war a mën a jaaree pour dem ci Serigne Touba ñun taalibe nga xam ne bii nag sëñ Ibrahima mbakke la ñu boole mooy bunte bi nga xam ne bii fa la mën a jaare am si Serigne Touba ndaxte lépp loo am te amoo loo wut te wutoo ko ci sëñ Ibrahima Mbàkke te yaakaar sëñ Ibrahima Mbàkke da nga koy séen waaye doo ko gis ma ngi mel ni jigéen guy sëy jigéen bu dee sëy lépp lu mu wut si ngërëm te wutu ko si ngërëm borom këram wut ak neen la kon na ñun suñ borom kër mooy sëñ Ibrahima Mbàkke lepp lu ne wut wala ñu diko def ci seigne ibrahim mbacke leen koy wuté ci ko wara am kon nyong ñong ci si mbokk talibé yépp di ci jital sun magi talibé yi nga xamni bi ñoy ñoy mëna taxaw ni ñu seigne ibrahim mbacke nee ñu di si ràññi ku melni seigne dam sil nga xamne ku yagg ak seigne bi la kon nak ñong di sant ñong ngi leen di gërëm kon kaddu yooyu lañ ci doon wax ñi ngi leen di nuyu ci turu fallu mbacke ibnu Cheikh Ibrahim di jëwriñu sëriñ daam di ki nga xam ne moom la sëñ bi teg ab loxoom eh, ab liggéey liggéey eh, bis bi ci loxoom muy bisu màggalu Cheikh Ibrahima Mbacke ñuy wax ci kàddoom mu jotuli ay kàddu yoo xam ne ci ndigalul sëriñ Ndaam Abdourahman la ko jële mu jóge it ci ndigalul sëriñ Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifatul am li taifatil muridiya mu leen di fàttali bis bi di leen fàttali it solos bis bi ndax bis bi dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne e, sëriñ Touba mu ci liggéeyu sëriñ Touba la bokk ndax dafa sosu sofu ci bisub sëriñ Touba muy bis bi nga xamante ne ni mooy ni ko sëñ Cheikh Abdou waxe bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahima Mbacke demoon ci ndigalul sëriñ Touba. dem ci liggéeyub Serigne Touba bis boobu moo dellu si wax na bis bi kañ la wax na it bis biñ koy màggal ci weeru tubaab sëriñ Fallou nag li ma wax mooy naa ko jot li mbooleem ñi nga xam ne euh, ñoom ñoom bokk réew mi rawatina autorité yi président de la république tàmbalee ko ci moom mi nga xam ne mooy kilifa ak réew mi mu koy yëgal bis bi di ko yëgalit mbooleem ñi bokk ci gouvernement bi di ko yëgalit mboolem ñoo xamante ni ñoo nekk ci réew mi te ay kilifay diine wala muy ay kilifay tariixa waaye itam di ko yëgal ñi nga xam ne ñoo koy ñoo ko daan taxawee ci wàllu njàngum kaamil mi ak alxuraan ji ci Touba ak li génn Touba waaye di ko yëgal itam ñi nga xam ne ñoo ko daan taxawu te nekk bitim réew lu mel ni waa Mauritanie fu mel ni Nouadhibou fu mel ni Barcelone ci Espagne ak fu mel ni waa Alicante ndax ñooñu ñëpp dañuy taxaw bis bi ak ñeneen mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ko doon tax te mënuñoo egg ci tudd seeni tuur ñu leen koy fàttali di xam ne bis bii rek lañ am ah bis bi it ku ñu ko jàppal ah ñu jàpp la ndax nit moom la nga xam ne mooy yitteem mooy la nga xam ne moo ko yitteel mooy bisam di di di lene di di di di di leneen lu demee ni lam fonk daal waaw loolu daal mooy li nga xamante ne ni Serigne fàllu nee na nañ ko nañ ko nañ ko nañ nañ ko ci jàppale waaw cérémonie officielle ba gannaaw timis la sëñ bi dana ko teewe incha allahu bëgg nañ daal ñëpp ñëw teew euh, jàppale ñu ci euh, taxawu taxawu taxawu taxawu bis bi ba lépp mel ni nañ ko bëggee waaw ñu ngi koy yëgal ñëpp ci turu sëriñ fàllu Mbacké di ko fàttali ñëpp itam waaw mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru korité wi di le premier ci weeru tubaab weeru juillet waaw meeru Mbàkke bi ñu ngi koy yëgal di ko yëgal gouverneur di ko yëgal ñeneen ak ñeneen am mboolem autorité yi waaw loolu daal la ma sëñ Fallou ne woon naa ko jottali ci ay kàddoom mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal it ñu yàgg koo teewe jërëjëf mbokk yi kàddu yaa ngi noonu Cheikh Mahamadul Fadal ne mi ngi yëkkati kàddoom ci ndigalul sëriñ Daam di ko wax ci turu Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha na bisub Serigne Touba ngoog mi ko koy yëgal mbooleem buntu kër yi Serigne Touba yi nga xam ne nag moo ñoom ñoo yem ci bis bi képp Serigne bi daa toog ci kër gi di fi seen jëwriñ nakkal leen fi waaye ñoo bokk wàcc waay bis bi la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mahamadul Moustapha ba ci kër Cheikh Mahamadou Mourtada noonu la ko yëgal it njabootuk Serigne Touba gu jigéen gi la ko tàmbalee ci buntu kër soxna Fatija ba ci buntu kër soxna Maymuna bàyyiwu ci benn buntu kër di ko yëgal mbooleem seexi Serigne Touba yi nga xam ne nag seen way juree ñoo jaayante woon ànd ak Serigne ca Mbàkke Kajoor jaar Mbàkke Bawol dem Daaru Salaam ba ñëw Touba mbooleem ku fa xam ne Serigne Touba moo boole woon sa maam ak mbooloo Serigne Fallou nee ne mi ngi lay yëgal bis boobu di ko yëgal mbooleem buntu yi diine yi bàyyiwul benn buntu ndax loolu moo doon doxoy ni Cheikh Ibrahim di ko yëgal nag mbooleem ñi yëngatu ci parti politique yi ak parti bu ñu ne te réew mi ñor leen rek Serigne Fallou nee na di woo ci bis boobu xam ne ñoo ko bokk la ko tàmbalee ci président de la république ba ci maire Touba bii nga xam ne moo di Cheikh Abdou Lahad Ka chef de village Touba bi di Serigne Abdou Lahad Jaxate maire Mbacke Touba daayira boobe se sëñ Fallou nee ne ñu bisub doomi Serigne Touba ji di Cheikh Ibrahim di ñaan nag bis ba ku fa teew yàlla mi mën faj aajo yàlla na faj say aajo ci barkeb Serigne Touba Xaadimu Rasul